ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون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 bila laffin wala jidaal wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim xuddaama tariqati tijaaniya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen balwaq dellu seeg yéen ci sunu tafsir suuratul muminuun di jéggulu bu baax tey tafsir bi mën naa bañ a gudd ndax ni aaya yi demee la moo tax ndax bu ñu saralee rek dañuy dugg ci xissa noox te bu ñu fa duggee rek dootuñu mën a taxaw lesson bi mën naa gudd moo tax ñu bëgg a gàttal leçon bi tey waaye bu ñu xamee saar wi ci lu muy wax rek dana am solo wala bokk aaya yi ñuy indi tey ci lu muy wax dana am solo dafa sofe ci aaya yi ñu weesu woon Euh, semaine bële passé nga xam ne sunu boroom daf ci doon daf ci doon wane man-manam kàttanam waaw da doon wane ne moom moo man moo man lim defit moom rek moo ko defagun keneen defagu ko ci ni mu binde nit ak fa mu jaar ak moom yépp waaw donte nit bi mu noppee nit taxaw na weddi ga itam sunu boroom moom gàcce nga laa ma moom muy fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin mu continuer nag di ñu wan yooya xam naa semaine balee passé dañu leen waxoon ni aaya yi danañ ko jàng eh, danañ ko daaj indi ko ci siira yi sunu mag ñi daan neexale bu ñuy jàng alquran waaye comme niñ ko waxee woon bi ñu jógee ci korige ba léegi dañoo am eh, bu ñu bu ñu jàngee bu ñu waxee bu ca kaw sax dañuy sëqat loolu moo tax waaye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 fa ansha'naa lakum bihi jannatin min naxilin wa a'naabin lakum fiha fawaakihu kathira wa minha taakuluun wa shajaratan taxruju min tuuri saynaa tambutu bidduhni wa sibghin lil aakiliin wa inna lakum fi l-an'aami la cibratan nusqiikum mimmaa fi butunihaa wa lakum fiihaa manaaficu kathira wa minhaa taakuluun wa alayha wa ala alfulki tuxmaluun sadaqa allahu alazim comme niñ leen ko waxe woon borom bi dafay euh, wax ay kéemtaanam ci wàllu bind ak wàllu defar ak wàllu sos sunu bind ba lee paase gannaaw ba mu waxee jullit ñi nga xam ne way way gëm ñi nga xam ne dañuy texe nañu mel ba mu noppee ca loola dafa ñoo wax nu mu bindee doomu aadama wan ñu kéemtaan nga gannaaw ba mu waxee nu mu bindee doomu aadama ba noppi nag mu continuer nag di la di la xamal ne moom bindul doomu aadama kese bu doon lu jafe am na ci moom am na leneen lu mu def loo xam ne moo gën a jafe doomu aadama waaye yàlla moom kenn du ne bii moo gën a yomb ci moom bii doonte Eh, wax na waxin bu mel noonu waaye loolu mantiqu doomu aadama moo tax mu waxee noonu waaye yàlla dara jafewul ci moom mu wax ni walaqad xalaqnaa fawqakum saba taraa'iqa wa ma kunna an il xalqi mu ne walaqad xalaqnaa bind nañ yàlla may wax de nee na bind nañ sabaa taraa'iqa juróom-ñaari asamaan mu tiim leen faw fawqakum mu nekk seen kaw tiim leen te wama kunna nekkuñu xaafiliina di réere lenn anil xalqi ca bind ga waaw réere wuñ lenn ca mbind ga ndax yàlla du réere dara sàggane sàggane wuñ dara ca bind ga ndax yàlla du sàggane dara mooy fàttewul dara nga defar lu tol ne juróom-ñaari asamaan fàttewoo dara amu ci lenn loo xam ne yaa ngi naan bu ma yëgoon du ma ko defee nii nii laa koy defee bu ma yëgoon asamaan bii leen tiim laay def juróom-ñaareel ba mu féete kaw bu ma yëgoon bi ci digg bi dama koy def nii def ko naa déedéet amul su ma yëgoon na mu ko bëggee la ko defee te loola dara moyu ca te itam amul lu ko ci bett mooy léeg-léeg da nga defar sa mbiir ba pare dana waa man sama affaire bi nekk te mën naa def nii de moom fekk yow yaa ngi doon defar mais xamoo woon ne soo paree dana man loolu yàlla loolu dalu ko ndax loolu ci càggante la bokk te yàlla du sàggan moo tax réeréwul dara ca mbind ga amul fenn foo xam ne gag na di xool ba xam nan la ko war a defare waaye amul lenn lu feeñ ci asamaan yi lu ko bett waaye tamit amul genn doyadi gu am ca liggéey ba kon nag kéemtaana ngoog mu ne wala qad xalaq naa bind nañ sabaa taraiqa juróom-ñaari asamaan fawqakum mu tiim leen gis nga xam nga waxoon na ni mu bind nit mais bi mu waxee nit boppam ba noppi mu wax ne bind nañ juróom-ñaari asamaan yu leen tiim wama kunna te nekkuñu xaafiliina di réere dara na di sàggane dara anil xalqi ca bind ga ndax riir ak sàggan moom bokkul ci melokaanu yàlla mu ne ba ma defee loolu yamuma ca waaye wa anzalna min alsamaai maan bi qadar fa askannahu fi l ard wa inna ala dahabin bihi la qadiron mu ne wa anzalna wàccee nañ maa an am ndox min alsamaai gu bawoo ca kaw ndox mu bawoo ca kaw ñu wàcceel leen ko ci suuf ba ñu ko wàccee fa askannaahu ñu dëkkal ndox ma fil ard ci suuf déeg yi taa dex yi fees suuf si téye ko garab yi di ko dunde gàncax gi di ko dunde te nee na wa inna ñun yàlla day la qaadiruuna way man lañ ala zahabin bihi ci yóbbu ndox ma bu ñu neexoon taw ko ba taw bi wàcc déeg yi taa nee na ma yóbbuwaat ko suuf si tee ndox mi mu di bàq nga ji yaakaar ne dangay ngay saxal nee na ma rocc ndox ma garab yi doon ko dunde bu ma neexoon ma rocc ndox ma maanaam maa ko wàccee mais ni ma ko mën a wàccee noonu laa mën a nocceewaat ndox mi delloo ko fu ma neex bàyyi leen ci bekkoor nee na ba tey mën naa loolu kon euh, toujours mi ngi ñuy wax loo xam ne moom doo nga ko man rek waaw la sunu mbokkum daara ma waxoon rek mu ne mbokk ma diw mu ne ko ah mu ne yàlla jekk nañu de waaw yàlla jekku nañu de waaw ma ne wax nga dëgg de jekku nañu torop de waaw daal dañoo jekku-jekku goo xam ne kenn mënu koo was kon nee na wa anzalna wàccee nañ maa an am ndox mina sama mu bawoo ca kaw bi qadarin ci ab ci ab dayo bi qadril xaaja maanaam wàccewul ndox mu ëpp moo xam ne day day yàq wàcceelu leen mu néew moo xam ne du ngeen ci mën a def dara mais daf leen a wàcceel moo xam ne da ngeen ci mën a bay da ngeen ci mën a naan da ngeen ci mën a da ngeen ko mën a jariñoo waaye ba ñu ko wàccee taxul ñu génne ci suñ loxo de fa askan askannaahu ñu dëkkal ko moom ndox ma fil ard ci suuf ci sunu kàttan wa inna te ñun ba tey ci sunu kàttan la qaadiruna way man lañ ala dahabin bihi ci yóbbu ndox mi mën nañ ko waaye defuñu ko ñu bàyyi leen ko fa fa ansha'na lakum bihi jannatin min naxilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu kathiratun wa minha ta'kulun nee fa ansha'na lakum ñu sosal leen ca bihi ca ndox ma jannaatin ay tool yan tool mu indi minuk bayaan ne min naxilin ay tooli tàndarma wa anaabin ak i tooli raisin mu représenté mboolem luy xeetu tool lakum ñeel na leen fiihaa ca tool yooyee fawaakihu ay firwi ngeen di fa am banaana di fa am mandarine di fa am orange di fa am mango di fa am yeneen wala kum lakum ñeel na leen fiihaa ca tool ya ma leen wutal ci e, ndox moomu fawaakihu ay fruits kasiratun yu bari te wuute wa tëkuluna ngeen di lekk itam minha ca fruits yooyee yàlla nee na maa def lii yéen defu leen ko kon yéen li ngeen di lekk sax mënu leen koo defar waaw li ngeen di lekk ci boppam mënu leen koo defar ma koy defar kon nag ku ko weddi rek da ngaa ñàkk jom kon e, jox nañu ñaari kéemtaan yoo xam ne bu ci nekk waxuma doy na kéemtaan waaye ëpp na kéemtaan bu njëkk bi mooy ban jox nañu kéemtaanu bind juróom-ñaari asamaan jox nañu kéemtaanu wàccee ndox mu jóge ci kaw muy ñaar jox nañu sax ñett ba ñetteel mooy jox nañu kéemtaanu wutal ñu tool ay tooli raisin ay tooli eh, eh, tàndarma waaye yow mi am toolu gerte xamal ne yaa ngi ci biir aaya bi tool bu waay mën a am boo xam ne ndoxay ñoral la fa nekk te tool bu ndox dul ñoral la fa nekk amul bum ci mën a doon dugg na ci biir aaya bi waaw nee na ma wutal leen ca ay tool ay tooli tàndarma ak ay tooli raisin tool ya ngeen di fa am ay fruits yu bari te wuute di lekk ca fruits ya waaye nee na yemuma ca nag wa shajaratan taxruju min tuuri saynaa tambutu bi duhni wa sibghin lil aakilin nee na wa shajaratan ma génneel leen ca ndox moomee garab ma génneel leen ca tool yooyee garab ci sababu ndox ma gan garab mu ne garab goog taxruju ma ngay génne min tuuri saynaa ca tuuru saynaa fa yonente yàlla Muusa doon waxanteeg boroomam ca jabal ba euh, euh, garabu olive sax fa olive moo tax boo gisee sunu borom garab yi mu tudd dañoo am njariñ tàndarma dafa am njariñ raisin dafa am njariñ moo tax mu tudd leen ñu représenté yeneen garab yi waaye garabu olive moom itam dafa am njariñ dafa am njariñ mu ne tambutu dafay génne moom garabu olive ga dafay génne bidduux ni ci diw diwuk olive dafay dëgëral yax xam ngeen ne bokkul ak yeneen diw yi waaye wa sibrin dana génne randaay lil aakili na ñeel way lekk ña danañ ci génne luñ def ñeex kon daal sunu boroom wax dëgg yàlla wàccoo naag ñun nag waaw wàccoo naag ñun kat nee na wa shajaratan ma génneel leen garab goog taxruju wala boog wa shajaratan fa ansha naa ñu sos lëkkum ñeel leen bihi ca taw ba e, jannaatin ay tool wa shajaratan aku garab taxruju guy génne min tuuri sayna ca tuuru sayna foofa daf fay bari moo tax mu tudd ko waaye mu représenté fépp foo xam ne garabu tu garabu e, zaytun olive dana fa feeñe mu ne tambutu muy génnee biddu ci diw ndax diw olive dafa am solo waaw wa sibxil lil aakiliin ma génne leen ca randaay ñeel way lekk ña kon loolu beneen kéemtaan la nga defe kéemtaan kon doy na ba tey booba moo ko man fii yim fi wax yépp moo ko man mu continuer mu ne wa inna lakum fil anaami la ibratan nusqiikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manaafiu kathiratun wa minha taakuluun yàlla mi ngi wane ne moom mooy yàlla kon nag wax dëgg yàlla yéeme na trop mu ne wa inna lakum ñeel na leen la ibratan ak waar fil anaami ci bàyyima yi ma yi ngeen di yar ci seen kër yi ni mu ne kéemtaan mi ngi ci gu ngeen ma mën a gëme kéemtaan gi lan la mu ne nusqiikum ñi ngi leen di nàndal mimma fi butuniha lay bawoo fa seen biir ya te mooy soow ngeen di garat di naan soow ma te nee na soow ma ma ngay bawoo ci diggante deret ak sébirit ngarat rat am soow mu weex wayal naan wala nga naan ka noona ca meew ma kon nag kéemtaana nga fakat wa inna lakum ñeel na leen fil anaami ci eh, bàyyima yi la ibratan ak waar am ngeen ci kémtaan am ngeen ci ab bind nusqiikum ñu ngi leen di nàndal mimma fi butuniha ca lay bawoo ci seen biir ya nañu jël rekk ci misaal xar wala bëy seen meew nga xam ne bu nit lekkee lu rees lu mënul a rees nga xam ne ba nga ko lekkee rek mat na weer mën naa am soow la wala yàpp la te reesul buñ lay nàndal ñu jël meewum bëy boole kook nandal ga eh, jox la ko nga naan ko mu daldi di jàllar bi jàllar bi ko ci biir mbàq gi daldi di yàpp wa wala soow ma nga naanoon te reesul nga daal di koy waccu wala bu dee lu reesoon la te génnul nanguwul dem toilette mu daldi koy jàllar bi jaxase ko nga daldi koy génne kooku kéemtaan la goo xam ne bokkul ak xéewaluk nga naan soow mi mu defar sa yaram kon loolu kéemtaan la mu ne waaye yemu ca wala kum ñeel na leen fiihaa ca bàyyi ma ya manaafiu ay njariñ kasiiratun yu bari am ngeen ci ay njariñ yu bari am na ci yoo xam ne am na ci yoo xam ne e, yéen a ngi leen di rat yéen a ngi leen di yar di ci commerce di ci di ci gañe ndax léegi sax am na xar yoo xam ne ay millions lay jar léegi bëy am na ci yoo xam ne ay ay ay ay cinquante mille jëm kaw lay jar ko yooyu yëpp ay xeeti njariñ la waaw gëléem noonu nga xam ne li ci gëléem tey faj doomu aadama e, kenn xamu nu mu toll koo xam ne sébbirit ma day faj saw ma day faj soow ma day faj yàpp day faj kawar ya day faj lépp dafay faj ba noppi danga ci sëf danga ci danga da ciy sëf lu bari di ci tukki di ci jëggi ndax sunu mag ñi daan nañ jugee njàmbur jëgge ji saalum daan nañ yësal gëléem sëf ko juróomi bari buñ paree daq ko mu jóg ñu mottali sëf bi mu mu jële leen saalum ba njàmbur kooku wala kum fiihaa ñeel na leen ca manaafiu ay njariñ ma ngoog kasiratun yu bari wa taakuluuna te nee na yéen a ngi lekk min ha ci bàyyima yi kon bàyyima yi kéemtaan a ngi ci waaw wa inna lakum ñeel na leen fil anaami ci bàyyima yi la ibratan kéemtaan la ibratan ak waar la ibratan ab bind nusqiikum ñi ngi leen di nandal mimma fi butuniha la bawoo ca seen biir ya walakum te ñeel na leen fiiha ca bàyyima ya manaafiu ay njariñ kathiratun yu bari wa takuluna te yéen a ngay lekk min ha ca bàyyi ma ya ba ca des nag mooy wa alayha wa alal ma tuxmaluun muy geneen xéewal mu ne wa ma tuxmaluuna def na leen sëf alayha ca kaw ba ma ya nga war fas wi dox sa soxla war gëléem gi dox sa soxla war mbaam mi dox sa soxla waaye yemul foofu waaye ngeen di dox ci jéere ji ngeen di dox ci géej gi ni ngeen di doxe ci jéere ji te comme ni ngeen dul labe ci jéere ji ngeen ñàkk koo labe ca géej ga boobaat kéemtaan la moo tax mu wax wa alal fulki wa tuxmaluuna ñu di leen sëf alayha ca bàyyi ma ya ngeen di tukki wa alal fulki ak ca kaw gaal ya wala bokk ca biir gaal ya ngeen di ca tukkee di ca dox seeni soxla te alkuwu te ndox mi lekku leen kon yii mu lim yépp ay kéemtaan la yoo xam ne eh, benn bu ci nekk bu amoon keneen ku ko man sax nga nga mën a wax ne loolu diw man na ko waaye amul kenn ku ko man du ku ñuy wooye buur du ku ñuy wooye yonant du ku ñuy wooye malaaka du ku ñuy wooye waliyu du ku ñuy wooye xutbu du ñuy wooye sëriñ du kenn du kenn du scientifique ba du kenn koo xam ne lii fi sunu borom wax man nga ko waaw euh, olive bii mu tudd kum ci defarloo woon xob ñoom ñëpp buñ dajee woon pour defar xob aw xob xobu olive mënuñu ko buñ dajee woon pour def ak toq diw toq diw toq ak xood rek mënuñu ko kon nag balaa ngaa xam ne mbir mi xéewal la te ñun ñi ngi koy jëfandikoo mu di ñu jariñ na nga def sa xel ci ne lii mu ñu wax kenn mënu ko moom doo ko man kon nag xéwal la kon foofu la aaya yi taxawee kon ñu delluwaat gannaaw rek daal di koy benn bennal ndax mbokk yi yor seen sunu borom nee wala xad xalaq naa bind nañ fawqakum mu tiim leen sabaa taraiqa juróom-ñaari asamaan wama kunnaata nekkuñu gaafiliina di réere dara anil xalqi ca bind ga wama kunnaata nekkuñu di sàggane dara anil xalqi ca bind ga nee na wa na wàccee nañ mina samaa'i lu bawoo fa asama lu bawoo fa kaw ndax asamaan mooy kaw rek maa an am ndox bi qadarin bu tolloog seen aajo fa askan naahu ñu dëkkaloo ko fil ard ci suuf si wa inna te ñun yàlla day la qaadiruna way man lañ ala dahabin bihi ci yóbbu ndox ma fa ansha naa ñu daal di sos lëkum ñeel bihi ca sababu ndox ma dëkk ci suuf jannaatin ay tool min naxilin yooyu tàndarma la wa anabin ak yooyu raisin lakum ñeel leen euh, euh, euh, lakum ñeel na leen fawaakihu ay fir wi fiihaa ca tool ya kasiratun yu bari wa takuluna ngeen di lekk itam minha minha ca fir wi yooyee ak ca tàndarma yooyee ak ca raisin joojee ak ca des yooyee wa shajaratan akuk garab taxruju goog ma ngay génne min tuuri a ca tuuru saynaa tambutu muy génnee bi ci diw wa sibxin ak randaay lil aakili na ñeel way lekk ña te loolu mooy garabu olive wa inna lakum ñeel na leen fil anaami ci bàyyi may la ibratan ak waar nusqiikum waar ga mooy nusqiikum ñu ngi leen di nandal nàndal mimma fi butuniha cala bawoo ci seen biir ya walakum te ñeel na leen fiiha ca bàyyi ma manafiu ay njëriñ kathiratun yu bari wa takulu wa te yéen a ngay lekk min ha ca bàyyi ma ya wa alayha wa tuxmaluuna ñu di leen sëf ñu di leen sëf yéen ci seen jëmmi bopp alayha ca kaw bàyyi ma ngeen di leen war wa alal fulki ak ca kaw gaal ya e, ngeen di tukki di doxi seeni soxla allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa bila shak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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون